alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah cher internet yéen ñu ngi seetaan ci biir euh, réew mi ak ci bitim réew di suivre seen chaîne YouTube euh, Malben. Euh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di nuyu xalifa bi Mawlaay Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass di nuyu tamit euh, al imaamul akbar imaam Cheikh Tidiane Alioune Cissé euh, di nuyu ngay xadara Ibrahima bi yëpp. comme niñ koy defee suñu rubrique waajal gàmmu Taïba Niassène tey ñu ngi fii ci kër suñu Serigne Cheikh Abdou Ndaw ñu ràññee ko ci pays bi lool macha allah muy koo xamante ni kuy liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu Euh, ku ko xam itamit xamee ko Cheikh Abdou bu imaam Cheikh Hassan Cissé radiyallahu anhu donc tey moom lañ seet si euh, mu fas yéene waxtaan ak ñun ci li nga xamante ni moom mooy euh, solop euh, juddug Maulana Cheikh Ibrahim Niass foofu ci Taïba waaye tamit yëkkati ay kàddu yoo xamante ni kaddu yóbbal la jëmale ko ci mbooleem ñi nga xamante ni ñooy fas yéene jëm ci barab bu màgg boobu nga xamante ni mooy Taïba Niassène du ñu def dara lu dul bàyyi ko mu nuyoo ak ñi nga xamante ni ñoo ñu seetaan bu ko defee dugg directement ci tontu yi Cheikh Abdou bismillah alhamdulilah rabbil alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiri al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari azim alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi ziara ñëpp di kontaan bu baax ci feeñu tey weeru rajab rajabul fard bi nga xam ne ngeen lu bëri am na ci lislaam xam ko yonent ci yàlla Muhammad leeral ñu ko di sant yàlla benn yoon ci feeñaayu Mawlana Cheikh al Islam Aj a Niass muy saahibu fayda Tidiane bi nga xam ne moom la ñu Cheikhu Tidiane digoon nañu taati faydatu ala yadi asxaabina hatta yadxulu naas fi tariqatina afwaajan afwaajan loolu la ñu Cheikhu Tidiane digoon Mawlana Cheikh al Islam ba mu feeñee ci la faydu bi te feeñ kon ñu ngi sant yàlla ci feeñaayu Baay waaye ñu ngi sant yàlla tam ci feeñaayu faydu Mawlana Cheikh al Islam ala Ibrahima Niass bii tariqa Tidiane bii. di ndokkeel bu baax mbooleem njabooti Mawlana Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Ñas di ci jiital xalifa bi di ci jiital imaamul akbar imaam Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane Cissé di ci teg porte parole bi ak mbooleem njabooti Baay Ñas yi nga xam ne tey ñu ngi féetewoo ak ñun juddu Mawlana Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Ñas muy fukki fan ak juróom ci weeru rajab Baay Ñas mi nga xam ne bëgg gi bëgg yoon incha allah Muhammad saa salaam yàlla may na ko ci ay xusuusiye yu bari parce que bokk na ci yàlla mayoon ci àlla Muhammad bés bu mu juddu bés boobu la génn àdduna bàññees tam bés bu mu juddu muy fukki fan ak juróom ci weeru rajab bés boobu itam bàññees ci la génn àdduna ca London kon tey ñaar ñëpp la ñu ngi feetee rajab waaye itam ñu ngi fàttaliku itam London mu nekk nag li yonent bi bàyyi daan wax rek fàttaliku bànneexu juddu bi lu téye mu ko ñu fàttaliku ne bés boobu itam ci la yonent ci àlla Muhammad tàggoo xeet bi waaye bii tey mbégte la baa bàyyi si daan waxee ci mu fi xaq yu incha allah muhammad ne xani andi ibrahima allah hilaaloo hilaalu badaali ne jamaaloo ñun tey loolu bàyyi waxoon ci yonent bi rek ñun tey loolu la ñu war a wax ci xaq Mawlana Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Ñas moom nag ay lënt lënt yu bëri yi nga xam ne gars yu bëri dañ ko ci xam dañ koy fàtte parce que dañ naan gàmmu tey ba gàmmu tey ba la ñu wax waaw waaye bàyyi ñes ci tàkkusaanu fukki fan ak juróom ci rajab ci la judd moo waral bëgg nañ taalibe ba yëpp xam ko ne gaa gàmm dina am guddi gi moo Mawlana Cheikh Mouhamadul Amin dina ko def waaye fexe ba tàkkusaan bi bàyyi Niass juddu nga fekk la fa mooy mbóot bi tàkkusaan bi Baye Niass juddu fekk la fa mooy mbóot bi parce que Mawlana Cheikh Imam Assane Sy suñ sëriñ ñi nga xam ñu bëri da daan fexe ba heure boobu fekk ko fa bu ko fa fekku tam dina fexe mu jege ko fa pour mu ñëw ziara bàyyi ziara bërëb bu Tayba bi mais wàññeekuwaat parce que lieu de pèlerinage la ni mu ko daan waxee moom imaam wàllu yàlla fi mu juddoo fi mu génnee àdduna ak fi ñu ko denc ñett barab yooyu barabu kaay ñaan la te bës bi bësu ziyaara la gàmmu la gaa parce que loolu lañ ko siwee mais ci yoon dëgg-dëgg ziyaara baay lañ ko waroon tuddee bésu juddu baay màggal juddu baay mais demaale itam ziyaare baay ñes ci bërës bi mu juddoo moo tax ñu xam nag suru ziyaar ci mel ne Cheikh Assane da wax ne booy déparé sa kër booy dem rek boo dugalee sa tànk ndeyjoor ci sa dàll bi ci ngay fas yéene sa soxla yëpp doo dem ba ca barab ba nga toog de ko fa ñaane sooy départ ne maa ngi jëm tey ba que mbàyyi nee na wan faxu naa jami mën a xasadi nii képp ku ma diggal ci barab boobu rek moom tey ba yàlla na ko yàlla fajal mboolem aajoom hunaa la bay wax fii tey ba gii bi tey ba jotuke ilaayi taay ban tey ba boobu la baay wax ko fa fekk rek yàlla na ko yàlla jox mboolem càkku téefam kon boo déparé yaa ngi dem ziara ji baay ziara ji tey tayba sa buntu ne ngay fase yéene nga noddu siran boo noddoo ba pare nag nga fas yéene nag ñaan sa soxla nag dem am na ay mbuutu ziar nag yi nga xam ne mu xaddam yi taalibe buñ leen jegee dinañ leen ko wax waaw wax am na li ngay jàng booy dem wane ne bàññees man sa gan laa bàññees man sa gan laa yonent bi sa ganlaa yàlla man yow sa ganlaa laa doo ko dem nag soo demee nag ba yegg ci barab ba nag ñaan gi bàyyi bind tey ba mi rabbal ibaadi bëgg nañ taalibu yëpp ñu góorgóorlu ku ci nekk def itte lu mu bon bon bon loo mun ci salaatu faate gaa jàng ko mais loo mun ci rabbal ibaadi jàng ko minimum 41 bi am na suru rabal ibaadi bu nga xam ne nag ku jege Mouhamadul Amin Ibrahima Niass moo am na tur yàlla boobu ne moom boo koy sikkar di ko tëjee rabbal ibaadi mboot yu magang ci biir waaye xam naa ko jege baaba moom baaba moom mun na la ko laaye biir ñun nañu ngi ko amee ci buddu caasan waaye ci loxo baaba lañ ko yore kon xam naa ko jege baaba moom mu nga xam ne garanti na ne képp ku dem tey ba sa aajo dina faju te ku ñaw ren bu déwénee da nga gis loo mus sa gis kon wër na tax ñun ñëpp ñu dem saan fekk ñu tey ba ñu ñu màggal juddu bàyyi heure boobu noonu ca barab boobu noonu biir kër ma bu Ibrahima Ñas bi guddi gu ñu fekkaliku fàttaliku ko ci ay conférence yi fay am ak waxtaan yu mag yi fay am te boroom xam-xamu pays bi di ko am waaye mooy bokk na ci tey ba kon tey ba boo gisee suñ ne woon gàmm la kon dañoo waroon def jeudi bi lañ koy fanaanoo di ko gàmm biir set fukki fan ak juróom bi mais dañ ne gàmm tey bala mais boo xoolee guddi fukki fan ak juróom benn bi la ñuy gàmm mais bóot bi mooy bëccëg bi tàkkusaan bi na fa fekk taalibe bàyyi na fa fekk sang yëpp parce que heure boobu heure boobu la bàyyi ñes judd ni nga gis ne bu ñuy gàmm fajar la yoon ci àlla Muhammad salaam judd diggante fajar ak suba teel moo waral ñuy ànd ak aminatu ci matu gi ci matu gi di fanaanoo di sikka di tudd yonent ci àlla Muhammad di ko tagg bu heure bi nga xam ne tey moom la yónent ci Yàlla Muhammad sallam juddoo nga gis bàññe si la taxawee di marxaban bi cew tiyaan beeg di nga gis nag abana mawliduhu bi ci ci burdu bi abana mawliduhu bu ñu nga wax ñëpp jóg taxaw ñu màggal judd yónent ci Yàlla Muhammad heure boobu noonu ci la bàyyi di jàng xamsati bu seyru bi kii kii bi eh, mawlidu kii mawlaay salli wa sallam daayima abada bi ci lañ koy jàng muy burdu bi su ko defee nag wane na yoon ci Yàlla sallam judd na noonu ñuy màggale yónent ci Yàlla Muhammad juddoom gi noonu tam la ñu war a jox bàyyi àqam parce que moom nee na bëgg na ko ba mujj ko nekk ahbabtu hatta arani kuntu man bëgg naa yoon ci Yàlla Muhammad ba far sax di nekk di moom buru woon dara rek Baye Niass li ko Senghor waxoon ne ko léegi le plus grand ambassadeur du Sénégal dëkk boo dem tey daa dëkk boobu ay taalibe Baye Niass loolu Baye Niass rek la ko yàlla may à moom Cheikhou Tidiane à part moom yoon ci Yàlla Muhammad te li tax loolu moom mooy xalifa kii mooy xalifa kii mooman yuhibbuni wa man yarani fi jannatil xuldi is an na nii xalifatu tijaani bàyyi ba mu ne mooy xalifa cheikhu tijaani dafa feeñ foo dem tey tarixa bi tey fu mu àgg tey loxo Baay Ñas mu ngi ci te tey bu fekkoon tey am mbooloo mooy tax a créé tarixa kon Baay Ñas tey bu amee tarixa bari na tarixa yu bëri tey kenn dootu leen dégg mais Baay bu nekkee tijaan mu ngi wane doole waaye doole xaq te doole tarixa tijaan pour wan nit ñi ne tarixa bii ni mu ko waxee moom Baay nasihatu minni ilaa ixwaani ba tumsi ko tarixa mu ngi doon laaye bii taalibe yi na nañ jàpp tarixa ñun tam ni ñu war a mooy laaye biir taaliba yi ne nañ xam lan la bàyyi indi ba nit ñi topp du doon joxe wér rek Nigéria amoon nañ ay muqaddam yu fa nekk bu doon joxe wér rek naar yi Mouhamed Xaafis fa la nekkoon bu doon joxe wér rek kon waa Gana am nañ fa ay muqaddam yu daan joxe wér tijaan mais lan moo tax la ulamaaw borom dëkk yu mag yooyu ay Nigéria tey la Sénégal sedd nii waaye tey buñ demee semaine ñaari semaine buñ ne gàmmu Nigéria ñoom ñu ngi féete juddu baa ñes soo demee Nigéria daanaka fête nationale national hymne national lay doon Sénégal moo sedd rek fii la seddee de waaye Cameroun ñu ngay feete juddu Baay Ñas Nigéria ñu ngay feete juddu Baay Ñas Mauritanie ñu ngi koy feete fii moom la seddee parce que Baay rek moom la yàlla may comme lu tubaab bi di wax nul n'est prophète chez soi waaye nag Cheikhtidiane waxoon na ko mu ne canon bu mag bu bu tiiree fu sori lay dal moo tax kano muy capitale faydu bi te tur bi sax di ñu rappelé canon canon bi nga xam ne ren moo ayee gàmmu Nigéria nga xam ne tey ay 7 millions 8 millions nit la ñuy wax rek ñoo fay mën a teew ñoo fay mën a teew si dëkk bu nga xam ne 80 millions de taalibe bàyyi ñoo fa nekk muy Nigéria suñu xamoon ñoom tey nag ñun joxuñ Baay xàq ñoom sax war nañoo parce que Baay li mu am indi ko fii ci xam ñu koy ooyee maarifatu billaay nit ñi dañuy sóobu di àgg di xam seen borom mu nekk mbóotu tarixa bi mu nekk seer nourricière l'islam bi su nit ñi xamoon li Baay Ñas indi te war nañ gëstu lan moo tax Baay nit ñi topp ko du yaa ma neex de affaire baay nekkul affaire sant ñes baay ñes ba mu jógee dafa porté waale tur yi sant tur yi moom maam El Hadj Abdoulaye ñes ba pare sant ñes baay da ko porte tey foo dem ci àdduna bi boo ne ñes laa sant dañuy teral la kenn na tax ñuy teral la muy Mawlana Cheikh al Islam El Hadj ñes te baay dafa ñëw dindi ci ñun notion wu sant tey baay ñes rek ngay gis fii Sénégal ak yenn dëkk yu bëri sëriñ bu génn àdduna ñu suulaale ko taalibeem nga dem xaraw du bàyyi fekk Sidi Ali Seng ba tëdd. Oustaz Baraam Diop a fa tëdd Imam Assane fa tëdd loolu raw yoon ci yàlla moom da nga ko gis Ababacar Umar nga fa tëdd tey fay na dëkk boo dem sëriñ si ñoom ak seen doom da nga tëdd seen raw mel na ne bi daal affaire yi juddu la dañ koy donnante affaire yi bàñes du affaire yi juddu al ilmu huwal imam la baa yox mu ne xam-xam mooy njiit ku xamul rek waroo jiitu xataa bu fekkee doomu sëriñ ba xamul sax warta jiitu xam-xam moo war a nekk njiit bàñes moom na tey ba màggee tey ba kenn jàngalu ko kenn xamalu ko kenn yaru ko lu dul baayam te ba baayam génne àdduna te sax boo xoolee sax dafa daanaka tey ba boo calculé vingt et la la jox daanaka bàyyi boo amee vingt et un ans vingt et un ci la papam génne àdduna kon boo tey ba mu doon junj rek feeñu waayu Baay Ñas ak teyu dundam gi ci suuf su tedd googu su du woon dara ñu ne bàyyi fii la juddoo war nañ faa dem su du woon dara ñu ne bàyyi fii la juddoo war na faa dem bàyyi imaam mu ngi nettali mu ne 1946 ba premier awse yi ñëw di ziara si Baye ba ñëwee Medina fekkuñ ko fa dañ ne leen Baye mu ngi tey ba ba ñëwee tey ba ñu ne ñu ngi fekk Cheikh Assane mu ngi raam mu ngi fekk Cheikh Assane mu ngi raam mu 1946 premier awse yi ñu ngi fekk Baye tey ba nga xool tey kon tey ba màggaay gi mu am liggéey gi liggéeyal Baye Niass foofu ñu waarta bu ñuy fàttaliku tey ba war nañ fàttaliku ki tax ñu am teraanga tey di fekk tey ba muy Haaj Abdoulaye Niass muy taawu Baye bi nga xam ne mooy deuxième xalifa Baye Niass moom mi nga xamante ne moo ñu sunnaal sunna gu rafet bii mooy fàttaliku juddu Baay Ñas parce que inda zikri saalihiina tatanazalu rahmaat fu ñu fàttalikoo nit ñu baax ñi yërmande yàlla daf fay wàcc te yërmande mun ta weesu waa ji nga xam ne nag moo la fexe ba dox sa hijaab sa diggante ak sa borom parce que yàlla moo ñu wax ci alxuraan mu ne arrahmaanu fas al bii xabiran man yàlla laaj ma ki ma xam bu man ne kon wan na leen yàlla ci boobu yow war nga koo xam te Baay Ñas moo fi indi xam-xam bi nga xam ne tey moo waral tax tey nit ñi war a mun a jaar foofu ba xam ci àgg ci yàlla te moo wax ne ko tawaytu wa saxaltu tarixu ilal xaqi li kulli muridin wasli lil xaq bi raqi man bàyyi lem naa résumé naa yoon bi nga xam ne moo jëm ci yàlla bépp murit bu xam ne benn taal boo xam ne bëgg nga yàlla bëgg nga àgg ci yàlla te moom garanti woon na mën a wusulu jameel maskina bi habliya képp ku jàpp ci man rek di nga àgg képp ku jàpp ci moom buum rek di nga àgg te Cheikh moo ñu doon wax mu ne ñu jawatu Kamal boo demee ba ci bi salaatan tu arifuna biha iya li ñuy julli ci yonent bi lu ñuy jàng ci yonent bi lu ñu xam ci yonent bi yëpp li ñuy def yëpp julli googu yëpp pour lan la pour xamee ci yonent ci Yàlla Muhammad te nag ki nga xam ne nag moo ñu indil ñu mun a xam yonent ci Yàlla Muhammad mu ngi nii xam xaqatul muhammadiyatu xam xaqatul ahmadiyatu xam xaqatul ahadiyatu war nañ góorgóorlu ñun bàyyi ñes boobu ñu feete ko ma ne ko ni ma ko waxee ma ne Sénégal la seddee waaye tey ay Nigéria ay Mauritanie ay ay Niger ay Benin ay Togo mënu faa sedd parce que xam ne dina leen bàyyi apporter bàyyi daal mooy cadeau bu mag bi ñu yàlla may ginnaaw yeneen ci àlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw Mawlana Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane tey te tarixa bii tey mu sóobu tey bu ñu ne woon bàyyi Tidiane la rek war na tax ñëpp nekk Tidiane bàyyi ñes tiijaan la war naa tax ku nekk nekk Tidiane te bàyyi ñes tiitaroowul lenn lu dul ne moom tiijaan la ni moom jullit la te fépp fu mu dem. bëri na fi nga xam ne tey moom moo fa dem bàyyi moo fa yóbbu l'islam en tant que adepte de la tariqa tidiane bëri na dëkk yu bëri tey ay Ghana ay Nigéria ay Cotonou ay Damaono ay Benin ay Dimos ay Togo ba ay Cameroun nit ñu bëri tey nekk ay jullit ci barke Baye Niass wala barke ki jàpp ci Baye Niass ki ci mel ne Mawlana Cheikh Imam Assane Cissé kon tey loolu Baye Niass indi tey ñu gis ko mu yokk dama koy wax toujours benn défi la duñ mus a gis ñu ne nit ki taalibe Baye Niass la woon waaye di nga dégg tey kii taalibe diw la woon léegi taalibe Baay Ñas la ndax lan li baa Ñas indi dafa leer téye nit ñi du terewut nit ñi xam ne baa indi na dara ku am xel ñëwal nga mos li Baay Ñas indi Sénégalais bu yeew maa ngi koy ñaan nga yow gëstu lan la baa Ñas indi adduna bi képp ku bugg a xam lan la yàlla bëggee jaamam na nga góorgóorlu nga rapproché wu ci Baay Ñas am na lu Baay Ñas indi lu jógee koo ci yoneen Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te indiwu ko pour kenn da ko indi rek pour umma sayyidina Muhammad fal ummatu qasdi fihum an ashuhum ila xadrati barirahu ilahina bàyyi mu ne sama itte ci sama ci jaamu yi ci umma yonent ci yàlla Muhammad ci xeetu yonent ci yàlla Muhammad mooy ma ommal leen rek ba yóbbu leen ci yàlla te loolu rek la te mu ne nag gisuma ci nit ñi ku ma ëpp yërmande ci nit ñi ku ma jege ku ma sor yëpp a ci yem nag tey nag bàyyi moo waxoon ca tey naa naanal mu a man xat ataani ëwala wa aaxiran yaa aaxiran yaa ëwala Baay Ñas mu ne ñi ma ñëwaloon ca njëlbeen am nañ lañ bëggoon ñii ñëw ca mujj gi itam danañ am liñ mujj lañ liñ bëgg parce que yàlla mooy ëwalu mooy le premier yàlla mooy aaxiru mooy la dernier la ne moom yàlla la fi nekkaloon te maa kaana lillaahi daama lépp la nga dafa nekk ngir yàlla dafay sax moo tax mbiru Baay Ñas bii ca kaw ca kanam lay nekk ba faw ba fépp nag ba faw ba fépp nag fépp fay suuf si yàgg nit àgg fa rek lislaam bi dina fa àgg tariqa tijaan dina fa àgg fay du Ñas bi dina fa àgg te loolu yàllaa ko dogal bàyyi mu ne ñoom lañ tabaxoon man màbbal naa ko te li ma tabax nag man bàyyi ba péncam yàlla kenn du ko màbbal parce que lii lan la siru siru sirul islam ci boppam moom la Baay indi laa ilaaha illallaah ngi fi woon ñu xam ko afdalu maa qultu ana wa nabiyyuuna min qablu laa a ko xam ashhadu laa ilaaha illallaah war nañ bàyyi xel lan moo tax tey nit ki buy dugg ci lislaam li muy njëkk wax rek mooy ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasulullah maa ngi seede ne yàlla rek mooy yàlla te yàlla boo ñu wax ma na illaa bimaa alim naa balaa ngaa seede nga xam li ngay seede yow fan nga teg na yàlla moo yàlla waxumalaa na na ba tabaat na wa ashhadu anna muhammadan rasulullah tegaat ci ne yàlla moo yónent bi da nga ko fekkee ba mu ko yónni war a am ay preuve yi nga xam ne nit ki war na dem ba mun a xam fan la teg na yàlla mooy yàlla parce que yàlla ci moom dafa moom dafa seede na shahida laaw moom yàlla moo njëkk a seede ne moom yàlla moo yàlla moom xam na ne moo yàlla lan moo tax muy seede shahida laaw annahu laa ilaaha illaa huwa wal malaa'ikatu ñëw wal ulul ilmi a ñëw qaa'iman bil qist moom yàlla moo seede ne moom yàlla moo yàlla malaaka yi seede ko borom xam-xam bi doog a ñëw dëggal ne yàlla moo yàlla muy benn yonent yàlla Muhammad salaam amana rasulu la wax bi ma unzila ilayhi rab yi yonent yàlla Muhammad moo njëkk a gëm boppam gëm sa bopp ci yonent yàlla moom sallam la jiitoo balaa kooka kenn di gëm moom moo njëkk a gëm la ko yàlla yoon parce que bañ naa ko iqara muy bañ bañ demee ba ci biir la doog a xam ne moom moo porté nubu watu moo topp porté bi kii professeur bi mu doog a ñëw oote ko kon ku mel noonu nag bu ñëwee indi leen li nga xam ne xam-xam bu nga xam ne xam-xam buy jëriñ la bàyyi ñes taalibeem bu gën a ndaw bu toogee ak keneen ku bokkut ak moom taarixa wala bokkut ak moom pas-pas bu waxee rek dina ne ko li nga wax ni foo ko jëli te li mu wax bu wér la mooy lan bàyyi daf indi indil xam-xam moom day génne nit ki si bokkaale te yàlla dina baale lépp ba mu des bokkaale inna allah laa yaxfiru an yushraka bii wa yaxfiru maa duna zalika liman yasha yàlla dina baal bàkkaar yi mu des bàkkaar yi bokkaale kon boog ñu leen di oote ci tey ba waaye ñu ngi leen di oo ci bàññees dem ci tey ba mooy dem ci bàññees dem tey ba mooy fàttaliku bàññees dem tey ba mooy fàttaliku xàmmaliku lan la bàññees indi ba nit ñëpp topp ko di ci rëg-rëgloo nii tey Sénégal foo dugg fekk fa muqadam baay te muqadam lu jafe la woon maa laaj waa lañ fii la jógee dox fa paas pour ak yi ijaase idlaax tey léegi taalibe baay bu gën a tuuti am na ijaase idlaax mu ngi yore mbooloo dañ daan gis paa yi dañu gis benn paa bu ay 40 ans 60 sax benn ko naaj bee du tijaan am nit ñi dañ daan dund ci tarixa bi naan tarixa bi dafa diis ku ko jël wóor da xaar ba mag bàyyi ñes xale yu ndaw yi la jox tarixa tijaan ñu jàpp ci waxuma la yegg ci tarixa bi de waaye àgg ci mbóotu tarixa tijaan muy xaqiqatul muhammadiyatu xaqiqatul ahmadiyatu ak xaqiqatul ahadiyatu loolu nag bu amee ki nga xam ne moo ñu yombalal loolu ku nga xam ne moo ñu may loolu war nañ ko góorgóorlu ñu fàttali ko waa Sénégal ba tey jum seen nelaw ga màgg bàyyi waxoon na rek mu ne rawatina waa Kaolack bàyyi waxoon na Serigne Aliou benn lettre mu ne ko maa ngi fi benn dëkk Gana amu fi ku fi yeewu te amu fi ku fi yeewu te bëgguma ñëpp samay taaliba lañ mu nag waaye waa Sénégal ba tey ñu ngay nelaw rawatina laa seulement ahlu Kaolack rawatina nag waa Kaolack su yàlla may chance nag ñuy feete juddu baa Ñas ba pare di ci fàttaliku waale tam ne 15 rajab boobu ci la baa ngi tàggoo ker bi itam ca London te London boo ko xalaatee ci tubaab ci tubaab mooy London fii la ñuy joxe bàyyi ba mu fi jógee ndeke London lem tekki mooy London koy joxe nag ba tey mu ngi fi jamul fenn muy Mawlana Rasulullah muy Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane muy Mawlana subhanahu wa taala buur bi nga xam ne tey moo ñu may yoon ci Yàlla Muhammad ñu ngi koy sant yàlla bu baax ci li nekk jullit moo ñu may Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane yàlla li ñu nekk Tidiane moo ñu may Baay ñu ngi sant yàlla yàlla nañ nekk ay taale Baay Ñas xàqan yàlla nañ nekk ay tijaan xàqan yàlla nañ nekk ay julli xàqan yàlla nañ ci dund yàlla nañ ci dee Baay Ñas dafa ay jàngale yu sew yu mu am benn la ci rek xalaatal nit dafa ñëw mën a ko bàyyi ñii ngi julli yokk ci loxo teg ko seen dënn ñii di wàcc seen loxo ban moo ci gën mën na ko déedéet nekkul gëneel ñu war a wax mooy nañ dem jële yi ñu julleegul ñu ñëw julli si moom amul problème ay ñii ngi julli yoxe seen loxo yii ngi julli teg seen loxo seen dënn xam doog sadlu mu ne déedéet problème mooy nañ jëm jële ji ñu julliwul ñu julliwul ñoom ñooy problème parce que asalaatu imaadu diin julli mooy pilier central l'islam comme ku julliwul boo ko goon nañ koy def julli mu julli loolu mooy base bi l'islam googu nag bàyyi indi gën ñu ko dégguloo gën ñu ko bëggloo li ma wax doo mës a gis ji ñu ne taalibe Baye Niass laa woon ñun ñëpp am na fu ñu jóge woon man mi am na fu ma nekkoon balaa maa ñëw fii te amul lenn luy tax ma delluwaat foofu parce la ma fekk fii fekk ma amoon du ma fa jóge maa ngi laaj bii nag waa Sénégal nañ góorgóorlu ñu xam Baye Niass ñu xam lan la Baye Niass indi doomu Sénégal la bu nga xam ne lettre bu mu signé moom baay ci suuf na Cheikh Ibrahima Niass al Kaolack lay signé Ibrahima Niass la Kaolackois il est fier d'être donc Kaolackois il est fier d'être sénégalais bien que Sénégal fayaguñ Baye fayaguñ naar bi xoromam li baa Niass indi Sénégal boo demee ni Nigéria ñu ngi bëgg Sénégalais ndax Baye Niass soo demee Cameroun ñu ngi bëgg Sénégalais ndax Baye Niass soo demee Mauritanie ñu ngi bëgg Sénégalais yi ndax Baye Niass tey naar yi nga xam ne tey ci ñoom la tarixa tijaan jaar yegg si muy famille Mohamadul a ñoom ñëpp tey ay taalibe Baye Niass lañ ñoom ñëpp fii ba Sénégal ba Soudan ni ko Mawlana Cheikh Abdou Aziz Dabakh waxoon maa Abdou Aziz Junior waxoon ko Baye Niass boo ko tuddee fii Sénégal ba Soudan ci turam ñu teral la soo demee ba Màkka ñu teral la zawiya bàyyi foo dem ci àdduna ñu ngi fa bàyyi xëccoowut mbooloo xëccoowut dara bàyyi lu mu xëccoo mooy nañ ko jox jëmm yi nañ ko jox yi nañ ko jox xel li mu sol ci mbuutu yàlla bi soo sotti yónni ci yàlla moom mbuutu xàq bi nit ki texe àdduna texe àllaaxira yal nañu yàlla may ñu dem tey ba ci jàmm ak te yàlla nangol ñu suñu ziara nangol ñu suñu màggal bu ñuy màggal bàyyi waaw ñu laay biir suñ mbokk taalibe yi nga xam ne ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw tey ba ñu fexe ñu ñëpp ñu góorgóorlu ku mokkalul rabal ibaad yi nga fexe nga am téere bi nga koy jàng boo ñëwee ba ci bërëb bu sell bu muy tey ba bàyyi mu ne rabal ibaad yi ku koy jàng soxla boo teg ci ginnaaw mu nangu donc kon du rabal ibaad mais rabal ibaad soxla bay ñëw ca ginnaaw soo ko jàngee ba mu jeex soxla boo teg ca ginnaaw rek mu ne day nangu nga ñëw fa nag jàng minimum 41 rabal ibaad yi soxla boo fa garanti soxla boo ci dugal dina faj te buñ fàtte nag ndoxu tayba bi di ci naan di ci sangu ndox mu am barke la yóbbaale suufu tayba bi itam amul benn suuf bu gën a barke suufu tayba boobu luñ ci mën a am yóbbaale ko sax mbuut la parce que bàññees foo jaar tayba rek baay jaar na fa jamono ma alaay balaa ñëw dafa am fu limité woon Taïba ne bu fa kenn dépassé ba timis jotee bàyyi ba mu ñëwee dafa yaatal Taïba ne comme neex fu la neex dëkkal kon bàyyi mu tënk Taïba tënk na ñu ñaan ñëpp yàlla na yàlla defal ñu mbootu rabal ibaadi boobu bàyyi jàng woo Taïba ñëpp gis Taïba ni mel jagle bu ko yàlla may ñun ñëpp yàlla nañu yàlla may te nañ góorgóorlu ñu ma ko rabal ibaadi di ko jàng waaye nag spécialement ci bés bi nga xam ne tey mooy bésu juddu Baay Ñas bi ñu fa ñu commencé di rabb suñu rabal ibaadi bi di ko rabb ba mët ñaan ji suñu soxla adduna ak alaxira yàlla wattu suñu xadara bi wattu xalif général Medina Baye wattu imam bi wattu porte-parole wattu mboolem doomu Baye mboolem muqada Baye fu mu nekk rek yàlla yàlla wattu leen man nag su ma mbébétu dafa dama doon xalaat ba bésu tey ba ak a neexoon tey ñu géwal ko mel ne Abdou Barhama ñu ne ko waxtaanee ñu ci Baye ñu géwal ko mel ne Baye Matar Ka géwal ko mel ne Sang jaay géwal ko mel ne Cheikh Mamadou Insa muqadam Baye jël ci naari jël ci awse yi ñu ñëw waxtaanee ci Baye doomu Baye ñi déglu dof yi dofu bàyyi wax ci bàyyi man de suma mbébét la woon yàlla nañu yàlla may bës bañ man ko may bañ man ko am ñu may gaa yooyu géew ñu dundal ñu ci bàyyi bi nga xam ne ñoom bàyyi moo leen yar yàlla yàlla may ñoom bañ ko mën ko fekkee ci bës yàlla may ñuy dund loolu ci ñoom yàlla bu ndaw yàlla ñu koy defal ñu ngi ziara mboolem muqaddam bàyyi fu ñu mën a nekk ci alam bi ngi gërëm bu baax waa mouvement ànd liggéeyal Baye Niass muy waa Malben ci seen liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi ko liggéeyal Baye pour tasaare liggéey Baye Niass pour xam-xamu Baye Niass pour tasaare njëriñ gi nga xam ne bàyyees moom la indi moo xam ci bunt bu nekk ci programme yi ci gàmm yi ci ziar yi ñu ngi leen di ndokkeel bu baax di leen ñaanal yàlla bàññees nag waxoon na inna lazina qaddamoo ni naaloo muradoom saadatun wa maalum képp ku ma liggéeyal man bàyyi di nga am sa càkkuteef di nga am texe àdduna àllaaxira di nga am alal itam ñu ngi koy ñaanal waa Malben yal na leen yàlla may seen lii ñuy liggéeyee seen matériel bi yal na yàlla may bañ def ba nekk télévision yàlla may leen seen rajo bopp di divulguer liggéeyal Baye bi ni ko bëggee xam-xamu Baye Niass bi euh, mission Baye Niass bi ni ko bëggee ci barke Baye Niass Arab bi yàlla na yàlla yëkkati ban benn ca kaw yàlla wattu ko sàmm ko yokku seen ci zaahir yokku leen ci baatin yàlla na leen yàlla teg loxo yàlla na leen yàlla yónni ci àlama seen loxo yàlla na leen Cheikh Tidiane teg loxo yàlla na leen Baye Niass teg loxo ba liñ mébét ba ubbi seen liggéeyal bi Baye Niass ci yoon bi ci côté information bi yàlla na leen ci yàlla may tawfiq ak najaar ci barke Baye Niass barke weeru bi barke Baye barke mbootu Baye asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. man ki xamul te bëgg a maa jóg kañ ki gën a xam baraama ñas yow yaay ngalam alhamdulilahi dil qidam man ki xamul te bëgg a maa jóg kañ ki gën a balaa ma ñas yow yaay soppe maa ngi sakku ñaan bur yàlla dàqal ñu xañaan aji xañaan sax far di jóg naan bur yàlla dàqal ñu xañaan julil masiita rasul waalihi sawil ulum wa ibnuhu umul butun bi kulli ma yarkamun balaa ma ñas yow yaay ngalam tabe ki niiram ak i tawam sa kàddu neex ba mel ni lem Baay Ñas yow yaay ngalam yow yaay ngalam Baay fu mu juddoo tay ba fu mu yaroo ñaseen ca Baay ku ko jàngal baayam la moom kon tay yaade manga siin yow mal ca takusaan koo dal di mel ni saan malaaka yaa nga sàppe naan subhaana baraama yay cosaan yomal xamis ya takkusaan fukk juróom sarul manaam mu de rajab waa xay waxal ñu xaw foy fanaan mu de juddug baraama ñas biraa miraa wala labaas xarnu yeddin bi yaa ko baay ñas baraama yaari xaw ñas muusaa jogal taw na ba tooy takkal masiin yi fas yaa ngi jooy ngir bëgg bay sa tool du booy baay sa tool du sa tool du booy ndax mu takkal ma ay garaat bay may ma ndigal ma jóg jihaat na ma xamal lan lay doxaat yëllëg ana ban ay dapoor lay wàccihaat dolli ma ndax ma way la yaa koy joxe ba tax mu law ba tax mu law nekk di law askay baraama yaa bay sa tur moo di Abdoulaye loolu ësal la woon bilaay nga wàccaat fii ñu naan la Baay Ñas ngay doom jëbaa ci Abdullah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah